Euh, am am am kii ci ñëpp am yéen ci ñëpp ba pare amul la kenn xaar ma yàlla moo tax vraiment nouvelle bi man ba ma ko yëgee yanqoo ba moom woo wax ma ko téléphone boobu nekk ma fa woon mais vraiment dama am lu ma métti trop trop trop vraiment Paye bu Diagne daal vraiment yàlla na ko yàlla yërëm te xaral ko aljana te xam na nit ku baax la artiste Sénégal yëpp xam nañ ko vraiment sama diggante moom nag moom ay xarit lañ carrément te ñëpp xam nañ képp kuy artiste xam nga ni ma mel ak Ibou Diagne vraiment Ibou Diagne di koo xamante ne nii macha allah vraiment Arcos bee ñu bokk di Arcos Pikine muy koo xamante ne nii gis ngeen ko ku ñëw foofu nga koy fekk chaque jour mooy njëkk a ñëw mu bëgg théâtre lool gëm ko lool aboole ci fulla ak fayda vraiment yor fi tamit ay xale yoo xamante ni macha allah ñu jox ko bopp vraiment xale yi tamit mu jàppale leen am yéene si ñoom vraiment daal vraiment yàlla jël na koo xamante ne nii bu tàggoon du ko jël. yëgoon nga feebar. bon waaw dafa defoon kii mu daanu mu dam waxoon na ma ko woon na ma ab vocal bi mu jëm waxante yàggul barkaat démb la maa muy gaañu vraiment boobu maa ngi ci rajo bi maag Saliou xool dan ma mu ne booy sama tànk bi soxla na ma demee ñaanal leen a déggante ak moom vraiment mag la mooy sama taw papa bu góor ku baax ci ñun. ku bëgg mbokkam bëgg ay rakkam du tànqam lu dara lépp lu xew moom moo ci jiitu te bu gisul benn bu geesoo gisul benn rakkam day woote ana diw lu tax ñëwul nangam ak nangam yàlla nag moom bu soxlaa jaam bu soxlaa day perte waaye ñun fu ñu amoon sañ-sañ dinañ nekk ak ba ci kanam féete nañ fépp foo xam ne rek sama papa daal nañ fa féete ku am yërmande ku bëgg papaam maanaam bëggu pamim ba nga naan kii maara di taari ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana oyofal suuf ci kawam àggale yéenam ci àddina waaye wax dëgg yàlla ni mel suñu xol bi mënuñu ko wax ñàkk nañ ñun ku baax ku ñu bëgg ku bëgg rakkam nouvelle bi man de damaa toog ba ci yàgg parce que bi mu demee dafa ma woo téléphone fekk dañoo amul fu ñu waroon daje samedi mu woo ma téléphone mu ne ma du mën a ñëw parce que dama dem ma ne ko dem mu ne ma waa dama ñu toog trois jours ma woo ko ndax tene nga mënuma waa tene naa maa ngi dem sax Toubacouta la ma wax maa ngi dem Toubacouta ma ne ko ah dama de moom yàggul ay mois rek lay diire mais yàlla na nga tene ak mu ne ma waa ci lañ mujj a déggante man ak moom mais ku baax la baax ku bëgg famille am. ngeen mujj a déggante si ay kàddu. deux jours lañ déggante après mu gaañu deux jours mu ngi ma arrêté sama téléphone sax deux jours après ñu woo ma ne ma mu ngi gaañu sama rakk bu góor sax moo ma ni ma Pape dafa gaañu man koy xamoo li ngay wax kon. deux jours te ñu waroon a daje lii de lañ ci am. lan ngay dénk ki nga xamante ne moom moo di fameem jabaram ay doomam. ah li gën a métti sax mooy bu ñu amoon benn doom boo xam te nañ ko mën a xool fay ko borom bi mu ñu lebal ci doomam wala ci leneen mais fi ñu toll nii buñ koy fay rek suñ bopp la ñuy fay parce que ñun la dese mënoon nañ koo xool ci doomam wala jabaram wala dara mais lépp rek ñu ngi ko delloo ci loxoy yàlla yàlla na ko yàlla fay. suñ bopp lañ mën a fay parce que gisuñ ku ñu fay. bëgg amul woon doom ko. déedéet jotul am doom jotul am benn doom mais Baye Fall ku baax ku baax dem na koo xam te ne duñ ko mën a amaat ci àddina buñ dajee sax ci dara ñuy cotiser xam la may wax leen seen poset dinaa def lépp buñ dajee dinaan téye leen seen poset ma dinaa def lépp ko oyof. di la wax nag ku baax si ñun bëgg ñëpp man moom man la féete loon xale yi mën nañ maa seede loolu dama doon wax. benn jabar ba ñeent ku ma am yaay doon ndékkale ma ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla na ko foofu gënal fii yàlla na ko yàlla defal aj te àjjana ya gën a kawe yàlla na ko malaakam mën a teew baax na bëgg na mbokk fu mu toll ngi nemmeeku fu mu toll mu ngi nemmeeku ba soxlawu leen dara ba manqué wu leen dara ah bu leen ma rus de lu ngeen soxla na ngeen ma wax maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm woyofal suuf ci kawam ku baax ku jullite fu lu heure su la wooye nee na la waxtu juróom yi bu ko bu la ko dara taadeel même bu mënu sax booy tëdd sax na nga ko def bëgg Seexul Xaadim bu baax maa ngi ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm mën na mënuma wax bu bari ñu gis nga xamante ne moom moo di yaayam dafa feebar teewul tey ci bis bi moom naka la dundee li situation bi. metti rek metti rek waaye gëm yàlla yàlla moom bu soxlaa soxla yaay yaay muñ waaw yaayam moom wax yàlla dafa feebar trop waaw metti na moom waaye amuñu ci pexe muñ rek sant yàlla waaw. lan ngeen mujjee waxante. man yëguma woon sax feebaram. yëguma ko woon sama rakk bi sama caatu yaay moon ma ndax yëg nga paap dafa dam man ko déedéet ma woo ko mën ma ah ma la déggu rek jaaj naar laa xam ne yëgoo ko waaye tane naa bu baax sant naa bu baax da leen def ñaan rek barki démb sama rakk démb sama rakk bu góor woo ma fekk maa ngi tëdd ni ba tey sama wet gi day metti sax ne ma paap yëg nga nouvelle man ko ba nouvelle mun na paap wàññeeku man ko paap man ba ma nee bëri noonu ba tey sama wet gi day métti. merci beaucoup. waaw maa ngi leen di fay yéen ñëpp sama mag euh, Pape ñoo bokk papa mais xawma si moom loo xamante ne lu ñaaw la baax na bëgg na nit man maa gën a nekk xale mais musul dara musul bëgg dara su ma manqué dara à chaque fois su ma ko woowee ni ko lii laa soxla daf ma koy defal baax na bëgg na papaam bëgg na ñun ay bëgg na ñun aussi ay rakkam. amul lenn loo xamante ne pap di nga ko ko wax mu yor ko te du ko def man surtout man sax boolew ma ak dara xanaa di ko ñaanal rek fi mu fi mu jëm gënal ko fi mu jóge ku baax la daal suñ mag la woon amul benn problème. lan nga mujj a dund ak moom loo xamante ne boo ko xalaatee tool. jeudi rek laa mujjee wax ak moom mu may woo naa ma caat sonn naa de ma koy ma koy defal jeudi passé kese mu may ba may ñaanal. naan ma yàlla nga dund ba tara sa yaay parce que sama papa dafa gaañu loolu rek laa mujjee wax ak moom. feebar bi dafa metti woon yàgg na wala yàggul. non metti kiiwul yàggul dafa damm woon rek damm bi sax wéroon na euh, kii xool vendredi xaw ma samedi vendredi waaw lañu kii laa lañu xëy sama mag bu góor bi ni ma Pape de woo na ma naan ma dénk naa la sama bopp ma ni sama yaay est duñ ko woo mu ñëw mbuur dañ ko dañ koy woo rek après ñu jot keneen ñu ne ñu Pape décédé loolu lañ ci am. lu metti nan ngeen ko nan ngeen dundee loolu le fait que ngeen woote rek ñun leen décédé. metti na moom metti na trop metti na ba fu metti yam mais nag yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk te yàlla moo soxla moo tax metti na trop. lan ngay dénk njabootam bu dee am na soxna wala ay doom. xanaa ñu muñ xam ne yàlla moo ko fi indi te moo ko yóbbu moo ko soxla moo ko yóbbuwaat loolu rek daa leen di